li ñu dajale fii tey jii ci bisu 21 juin di di am lu ñu metti li nga xam ne dañ koy fésal ci doxaliñu société bi euh, bokk na ci communication bi nga xam ni efficaceul directul di jóge ci ci société bi di dem ci membre yi ak tamit euh, cadre de concertation bi am ñu mën nañ proposé li nga xam ne day améliorer service bi ñoom ñu koy jëfee te loolu li tax euh, wax bi nga xam ni nit ñi di si jot maanaam bi ñu waran daje assemblée générale pour waxtaanee ko foofu dafa am ñu ko yëg am ñu ko yëgul majorité bi yëguñu ko mais suñ fa demoon toog mooy doon cadre bi gën a favorable pour ñu mën a discuter si point yu bëri. Euh, xanaa yéen amu leen fa ay représentant ba tax communication bi mënul jàll. waaw mooy mooy li ñuy reproché euh, ce dirigeant yi que ne ñoom dafa am ñu far ak ñoom ñoom la ñuy yëgal ñeneen ñi nga xam ni favorable ñu ak ñoom duñ leen yëgal bokk na ci li ñuy wax. te ñoom seen système de communication yi maanaam site yeeg yooyu seen page yi Facebook yéeg yooyu dynamigul woon ba nga xam ni lépp lépp ñoom euh, li nga xam ni événement la war fa am mu am fa nit ñi yëg ko waaw. dama dégg sànq représentant ministre bi doon wax ne à chaque fois dañuy envoyé ay communiqué pour faire passer l'information en fait donc le fait que yéen doo leen yëg yooyu man tamit dina may jaaxal. waaw xam nga su dee dafa am euh, instant yi euh, àdduna dafay dox. dafay dox sooy bëgg communiquer da ngay xool communication bi nga xam ni moom mooy moo bu ciblé la bu jëm directement ci say membre nga def ko tey ji soo soo nekkee euh, benn client benn banque ñoom ñaam lu ñuy communiquer ah, message lañ la koy yónnee direct sa téléphone wala ñu jox la email mais du ñu dem ci ay journaux di fey ñu ko fay génne nga xam ni artistes yi dañuy jouer guddi ah di nelaw bëccëg bi yëpp balaa ñu yeew journaux yi jeex loolu soo communiquer foofu bëggoo ñu jot ci. loolu moo tax ñuy wax s'il y a des associations yoo xam ñoo seq secteur bi nga am lu important looy doxal ñoom ñooy relais yi da leen war a da leen war a yëgal ñoom ñu def relais information bi muy egg ci base ba. mais ñun société bi dafa am ñu ñu ko dénk ñu koy doxal am ay employés yu fi nekk di liggéey ñu leen di fay ci suñu xaalis. kon ñooñu seen liggéey defuñ ko comme il faut. defuñ le faut te xaalis ñun bi ñuy euh, percevoir. ñoom dañ ciy dagg ay frais de gestion yi nga xam ni dafa élevé ba pare doogaa ñi siy jox li li si des donc te ñun waxuñu pour fii dafa am yeneen société de gestion collective yi am modèle la yi nga xam ne yoo ni ñuy doxee ñoom dañu war a roy ci loolu pour avancer parce que ñooñu modèle bi ñuy teg ñooñu ci jiitu. est-ce que est-ce que fay bi ngay wax ni ñu ngi leen di fay normal. fay bi ñu ngi ñuy fay mais dañu wax ne euh, répartition yi dafa doyul de parce que sur 30 mois yi nga xam ni SODAV existé na ñeenti yoon lañ ñu ci fay. sur 30 mois. sur 30 mois ñeenti yoon lañ ci fay te planning de répartition bu ñëpp xam mu leer nga xam ne tel date dinañ la fay moo fi amul da ngay toog di xaar te nit ki tamit su dee dafa am benn somme bu muy xaar te am ay soxla yu taxaw war na xam kañ la ciy jot donc loolu c'est très normal euh, fayin bi tamit war na leer ba am suñ la fayee dinañ la wax dërëm bi fii la jógee dërëm bi fii la jóge loolu la ñuy wax frais de gestion yi tamit dafa élevé war nañ mën a xool nu ñu ko wàññee ba nga xam ne ñun suñu xaalis bi ñuy collecté ko indi fii li ciy teex du ñu gaañ. mbaa léegi am na. solution amagul te li ñuy def nii yëpp pour que ñu mën a am cadre bu favorable la mën a toog waxtaan ñu nangul ñu ñun li ñuy kaas xam ne suñu yëf la ñoo ko moom ba pare nangul ñun di dañ ci liggéey efficacement. waa dégg nañ ne aussi tamit état bi joxe na un milliard euh, waa SODAV pour euh, euh, jàppale pour jàppale artistes yi en fait loolu mën nga ko confirmer wala. waa gis nga ñun affaire milliard boobu bokkul si suñuy point yi nga xam ne relevé nañ ko. Euh, dirigeant wu société bi demoon nañu seeti président si mbaaxam mu dig leen dina leen jàppale loolu jàppale la bokkul ak xaalis bi nga xam dañ koy collecté ñu moom ko ñu ñu koy reversé voilà moo tax loolu ñun mun ñu si sore daal. waaw mais artistes yi est-ce que yéen ñëpp tamit ànd ngeen parce que bu amee ñoo xamante ne nee nañu amuñu problème ak SODAV ñii aussi tamit di def ay réunion di def sitting di wax ne ñoom aussi dañu am problème ak SODAV donc je ndax euh, euh, ànd bi ngeen war a ànd ndax ndax am na. waaw xam nga SODAV. am nañu plus de six mille cinq cent euh, membres associés dafa bëri ci fànn bu ne mais ñun ñi li tax ñuy wax maanaam dañoo nekk ci ay kuréel yi nga xam ne ay junni nit ñoo ci nekk ñu jiital ñu li ñuy wax du wax waxi caaxaan te mbir mi ñoo ko moom li ñuy wax yëpp kenn mënu ko teggi ñoom am na ay points yu bari d'accord nañ ci ci cabinet ministre bi moo tax ñun suñu waxee rek waxal nañu ay junni nit lépp loo gis nag am na ñu ci gis seen bopp am na ñu ci gisul seen bopp waaw mais ñi si gisul seen bopp moo ëpp te ñun ñoo ñu ñoo tax ñu génn di wax. solution moom moom rek la ñu yaakaar moom si xam nañ ni lu mu yàgg yàgg dina am mais rencontre bi ñu am ak ministre bi ak délégation SODAV euh, rencontre boobu ni mu jeexee neexul parce que ñun sax saaga nañ ñu foofu si biir cabinet ministre bi saaga nañu foofu donc loolu moo gën a yokk tension bi mais ba léegi nu sommes de personnes civilisées dañu yar te tamit xam nañ ñu fi ñu jëm ak li ñu bëgg. am nañ yaakaar que ne dinañ toogaat tamit loolu yëpp garaawul ñu toogaat waxtaanee ko wut solution si si crise bi